général de la DER euh, secrétaire général Boudère FJ directeur yi fi chef de service et directeur ak chef de service ONFP cérémonie bi nga xam ni moo ñu dajale dafa cérémonie bu permettre ñu signer convention Madame, ñu khatim ben këyit boo xam office national de formation professionnelle ak DRFJ dañuy boole seen xam-xam ak seen doole pour mën a taxawu ndaw ñi ci wàllu formation ak si wàllu financement signature bi nag waroon na am bu yàgg waaye dañuy rafetlu jamono ji nga xam ni am na muy jamono joo xam ni son excellence le président Macky Sall dafa taxaw pour xeyu ndaw ñi pour xam-xamu ndaw ñi ci walu employabilité ñu trouver ci solution yo xamné mo moo leen di permettre ñu mëna am xey lolu nak biko président nasee dafa am kuréel yu bari yo xamné ño wara liggéey ci bir lolu kuréel yoy nak pour que sen liggéey mëna yomb il faut ñu lekkolo ci sen bir ba nga xam lepp lu ñuy daf dañ koy def ci benn objectif rek mooy satisfaire li nga xam ni moom mooy ndaw ñi moom la ñuy xaar DER ñëpp xam nañ ni dañu am taxawaay boo xam ni taxawaay bu am solo la si li nga xam ni moo jëm si wàllum financement ak si wàllum entrepreneuriat gis nañu liggéey bi nga xam ni ñu ngi koy def si secteur d'activité économique yépp di accompagner yi nga xam ni ñoom ñooy ndaw ñi yore seen ay projet waaye itam ndaw ñi nga xam ne dañu bëgg a dugg si affaire entrepreneuriat ni ñu leen di taxawoo ni ñu leen di financer waaye itam ni ñu leen di former formation boobu nag nga xam ni DER daf koy soxla si ndaw ñi ñu ñuy accompagner moo waral tey lëkkaloo bii digganteem ak ONFP ndax ONFP dafa nekk kuréel boo xam ni li ko tax ñu sos ko mooy wàllu tàggat ndaw ñi fu ñu mun di nekk si biir Sénégal pour jox leen xam-xam jox leen qualification ba ñu mën a dugg ci ay société liggéey waaye itam dinañ leen ñi pour que bu ñu bëggee daf auto emploi wala entrepreneuriat ñu mën ko def kon boog lëkkaloo bi nekk na lëkkaloo boo xam ni dina yombal liggéey bi nga xam son excellence le président Macky Sall sas nañu ko di wax rek ni office national de formation professionnelle noppi na pour que bépp cible boo xam waa DRFJ gis nañ ko ñu soxla formation bu soobee yàlla lépp loo xam ni war nañu ci wàllu convention bi dinañ ko taxawee ba nga xam ni ndaw ñooñu dinañ am xam-xam bi leen war ñu am ko pour que DER mën leen financer kon book ñu ngi nuyuwaat ñëpp di rafet rafetlu bu baax jotaay bi jërë ngeen jëf ci seen. ak ñi nga àndal maa ngi leen nuyu ku nekk sa tur ak sa sant ñu ngi fii ci euh, siège DER. pour signature convention de partenariat bi nga xamantene moy euh, lié DER ak ONFP pour le luy dem bénéficiaires euh, bénéficiaires bénéficiaire financement ou DER comme ni ko xamé président Macky Sall euh, taxawal na kuréel bu wax DER 2018 ak légui boobu ak financé 106 000 bénéficiaires te formé nañu lu ëpp 5 000 bénéficiaires si Sénégal yëpp 14 régions 45 départements et 552 communes euh, tay partenariat bi signé dina tax euh, ONFP dina nek partenaire privilégié DRFJ pour le luy offre de formation ak contenu de formation bi ngeen ñu defal ci walum mbay mi mi transport les luy dem ci xaral yu bees yi ak lépp li nga xamantene entrepreneur sénégalais yi soxla nañ ko mu mengo ak secteur euh, euh secteur d'activité yo xamantene ñu ngi si intervenir lool bu weesoo DRFJ fas yéene na liggéey ak ONFP pour partenaire si le président Macky Sall tudé pôle emploi entrepreneuriat euh, pour les femmes et les jeunes bi taxawal si 45 euh, départements au Sénégal yépp nga xamante ñun ak yéen ak 3FPT ak ANPEJ ak FONGIP ak ADPM, e, ñeneen ñoo ñëpp dinañ ñëw euh, toog liggéeyandoo si département yi territoire pour matérialiser vision président Macky Sall Madame lu ñuy wax territorialisation des politiques publiques de l'État pour beaucoup ko ci population en matière de formation en matière de financement en matière de formalisation loolu ñu 3F ba paraît, en matière de euh, d'entrepreneuriat bu ñu sañoon fii ak deux bu trois ans dinañu former ay euh, milliers euh, d'entrepreneurs dinañ jox financement ñu mën a liggéey rembourser seen bor yi ñeneen jot ci pour que comme comme Sénégal gën a naat

Dès euh, si ngoon la ñuy war l'exécution exécution programme donc euh, la balle est dans votre camp. Merci. Merci.